rahmatullahi taala wa barakatuh yéen waa la xew lu xew TV maa ngi leen di siyaare di leen balaax di leen baal seen mbokk ñuy wax imam Sayad Dramé Touba mooy rafetlu seen liggéey di leen ñaan seen seen sarif jëm ca kanam suñu borom mi mën a jàppale yaa leen jàppale waaw man de li ñu naqari rek mooy ci Sénégal loolu mooy loolu ngeen doon waxtaane démb rek mooy mbiru Ouzin Keita moomu ak ñi mu daña dañoo bëgg dañoo bëgg a xajamal lislaam bi te ñun jullit ñi ñoo war a takku am fulla ak fayda ndax dañ na Sénégal quatre-vingt-dix pour cent la quatre-vingt-dix pour cent nag am na doole doole joo xam ne waruñu seetaan ay ñaari nit ak ñeent di ko di bëgg a xajamal diine ji ñu di ko seetaan bu fekkoon ni daal Sénégal man daal li nga xam ne moom laa xalaat ku ci sol yi ñu fekk la fa nekk ñu la deq rende wala ñu rey la wala ñu sànni la ba ba nga ba nga dee te kenn xam ku la rey buñ ko defoon léegi te dootoo fi dégg góor jigéen dootoo ko fi dégg kon ku ko sol kuñ ko gis nga def ko ñu la ndiiraan Sénégal waaw julli dinañ am la ndax yonente bi sallallahu alayhi ñu ànd na moom dañoo xeex ba diine taxaw kon nag ñun ñi nga xam ne ñoom la fi yonente bi bàyyoon muy sëriñ su baax si nekk Sénégal xeex diine ba diine taxaw nga xam ne bëgguñ fi dara lu ñaaw ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bëgg a yaafus ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekkoon sëriñ si am ñu fi wane gannaaw ñu fi nekk ba tey ñun ñii ñoo ñoo yaafus ndax ña àndoon yonent bi lañ doon bëgg a lañ fajoon nar naroon a faj seen bakkan naru koon a fekk lañ bëggoon faj faj nañ ko kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi des kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkal diine ji di Sénégal di quatre-vingt-dix pour cent maanaam ñi bëgg a yàq waru ñu ëpp doole ba luñ gis rek seetaan ko dañ ko war a fajal suñ bopp buñ duñ ci xaar kenn bu fekkoon kuñ ci gis nga def góor jigéen wala nga solu ko ñu dal ci sa kaw attaqué la sa sa nga ñàkk sa bakkan dootoo ko fi dégg laa la wax waaw waaw lu tax ñu ñuy seetaan góor jigéen ñi te commencé di xeex terroriste bi de seetaan góor jigéen ñi loolu laa bëgg ñu xam ko lu ñu lu ñu wax leeralal ma ko fu ñu dégg euh, di jàpp nit ñi naan euh, kuñ ci jiiñ euh, leen jiiñ terroriste ñoo xam ne ñu ngi taxaw nekk góor jigéen waxuñ leen dara loolu laa bëgg mu dakk kuñ ci gisate mu sol góor jigéen nañ attaqué nañ ko attaqué far ba kanam kon léegi tey mu jeex fi tàkk looloo koy dindi du wax du tëj man maa la wax lii wasalaamaaleykum wa rahmatullah waa di béggee encore une fois di ñëwaat rek ci beneen yoon bon tey dama ñëw en tant que xalaat TV euh, Ah. dama bëgg a wax tuuti ci actualité yi xew léegi yi eh, xaw ma gars yi duñ ko def na xaw ma tendance dañ ko def xaw ma buzz dañ ko bëgg a def xaw ma motu la après day jeex man daal comprendre ma mais man benn affaire daf ma jaaxal trop trop trop trop trop man non seulement man wallaahi man gëw ma ne man góor jigéen man am na man gëw ma loolu non seulement man pour man loolu existé wul. parce que mënuma comprendre en tant que góor ak góor di séq li góor war a séq ak jigéen góor ak góor di ko séq wala li góor ak góor lu jigéen ak góor war a séq jigéen ak jigéen di ko séq parce que hunna li baasul lakum wa antum li baasul la hunna loolu la yàlla wax nee na góor ñi yéen jigéen ñi yéen góor ñi jigéen ñi ñooy seen koddaay koddaay bu ko nit ñi xamul ça veut dire mooy que góor ñi nañu fexe jël ci jigéen ñi sëy ak jigéen ñi mais jigéen ñi aussi góor ñi ñooy seen koddaay mais nag nag jigéen ñi fexe ànd ak góor ñi loolu c'est simple mais man mënuma consevoir que góor ak góor di séq bàyyi fi góor bàyyi fi jigéen di dem di séq beneen moroomu góoram wallahi man loolu gëw ma ko pour man loolu amul pour man loolu rumeur la nii nii bii wax rek mais man loolu ba tey gëw ko te yaakaar naa tamit duma ko gaaw a gëm wax dëgg parce que dafa nekk loo xamante ne même bu dul diine boo jëlee diine sax dàq ko sax xel da koo nanguwul daal. asalaamaaleykum Lu Xew TV ñoo leen di siyaar yi ñëpp di siyaare waa sud bi ñëpp waaw tey nag mën naa wax si mbiru Ouzin Keita man bëgg ma si woon wax sax parce que kook moom dafa ma mës a neex Ouzin moom premier bi waaye bi bu ko njëkk a moom njëkk a parce que mënoo bëgg a nekk koo pare bëgg a def sa bopp jigéen mënoo nekk koo pare bëgg a def sa bopp jigéen gis nga yéen borom site yi man fi nañu lu passé seen site bii nii ak CCB du ma ko déglu parce que yéen site mooy loolu parce que nit boo koy jox micro war naa maa nekk góor yàlla piir ngeen jox ko micro mu wax wala ngeen dugg xool si dëkk bi ñi nga xam ni ñoo jox jox micro ñu wax ñu jox leen wax waaw mais Sénégal ku fi dàq fo ku fi dàq caaxaan rek dañ jox micro da ngay mujj sax da ngay da ngay seetaan kenn mujj sa xool di bon di naqari te doo si man dara mais nag sant nañ baax a baax bu ñu amee site boo xam ne mi ngi jox wasabam ñu mën di ci wax sunu xalaat wax dëgg yàlla daal man mbir Ouzin Keita mooy loolu nii la bu ko bàyyee ba liggéey keneen na fi def lu raw lii waaw mbërit set waale bi jàll na fi Ouzin dëkk yor wala si yoo xam ne ay yére jigéen la ci sol bam fees ah, mu taxaw ci kaw seen bi ah te ñun dama am njaboot gi màgg waaw yéen daal maa ngi leen sant bu baax a baax waaw maa ngi leen sant bu baax waaw lii laa ci amoon may wax parce que li ma naqar lépp mën ma ko wax sax waaw waaye nag sant naa baax mi amee fu ma ko mën a waxee. Eh, asalaamaaleykum man maa ngi dëkk région Ziguinchor <coughs> ah lu ñu di Sénégal de franchement rafetul léegi. Sénégal de ñu ne réew Bamba la mi réewu xaadim la ñu la ñu ne réew mi réewu Baye Niass ko réew mi dañ si war a am cër cër boo xamante ne dañ koy jox suñuy kilifa diine yu ñu yaakaar boo xamante ne dañ koy yóbbu ci suñu tarixa yi ndax li manqué respect bu mag la si réew manke respect bu mag la ñu ne réew mi réew mu diine la lu ñu neex ñi def ko te lu ci bon nag mooy jikoy góor jigéen loolu de duñ ci tiit te duñ ci ragal képp ko def d'accord ñu ak yow te yàlla d'accord ak yow te kenn kuñ yaakaar ci Sénégal muy sëriñ ci àndut ak yow te lu ma gën a métti ci ñoom dañuy def ba mu neex ñu taxaw waat waat ci suñu sëriñ waat si suñu nit yu yaakaar yi loolu rafetul te ñun si yem si Ouzin de mooy Wally Seck ak yeneen ak yeneen ragaluñu kenn ci yéen lu ngeen di def jaaduwul bu ngeen ko nekkulee sax waaye bu leen sol loo xamante ne ñi ñi dina leen ko jiin ndax góor daa am yéréew jigéen daa am yéréew jigéen sa tane na mën naa sol yére góor te kenn du ci wax waaye góor saa yu mu solee si yére jigéen rek ñu xam ne lii du yëfu góor te saa yu ko solee tami rek ñu jiin ko ci wàllu góor jigéen te loolu ku la jiin foofu tooñu la sa dëgg la la wax ndax yaa teg loo xamante ne ñii dinañ la ko jiin soo ko tegulee sa sa kaw kenn du la ko jiin dama ne nit kuy dox si dox mbedd bi solul sol lu baax sol loo xamante ne kenn du ko ci coow dina dox ba yegg fu muy dem doo dëkk benn baat topp waaye nit ku ku sol loo xamante jasineer sax boo ko solee mu rafet bay bëgg a dee nga daa naa ko ci kaw ba ca suuf soo rombee ñi ñuy wax la kiloot bu gàtt boo ko solee te du aas nga romb ñu ñuy seen su la ñu ñuy gisee ah dinañ la ko wax kon ñun àdduna noonu la Sénégal amuñu fetal amuñu duurante xamuñu saagante mais dëgg dinañ ko waxante kon maa ngi gërëm di baalu ak ñëpp. li xew si réew mi daan naqar na ñëpp du jàmm du xewil te musiba rek lay jural ci suñu réew.